vous présente le jeune créateur de sa génération Amad Thiam nek ci route nationale bu Wack Ngouna dem Kaolack après la mosquée d'Angle Islam tout près de Ousmane Sambo gay ku bëgg ci ñëw yu bax yi da ngay o Amad ci numéro bi di 77 937 50 83 xalé bi nga xamanteni kum comme ñawal boo génnee ñu laaj la ko la ñawal ki woko jokk nak dëkk ba am réseau dëkk ba réseau amuko da ngay wote ba sondoo jot parce que numéro bii dem saagal numéro ba mu amee ñett ma tey daa changé numéro <laughs> moom kay awa ah, mu changé piis ñaare mu changé piis xool ko réseau problème de réseau lii ah mu toog sax wàllum mu ngi kii daanaka fi ma woo si ko daanaka dama ko toroxal ci kër gi ñëw si ma doon ndogu sax damay dugg si ron làmp waaw la ndogoo waaye ren moom am ñëw ma jëm ko xëcc dégg naa ne ren am na xaalis jabar di nekkoon réew ba tubaabam envoyé na ko dëgg naa alal léegi moom Senghor tiimalut ko moom mënul toppandoo xanaa tabax man mënuma ko jotee man nag juumati ni ma yow léegi man maa juum man maa juum def zéro zéro vingt ñu doo jël man day dosé di alors waaw kon kàlla baaw yaram la kay da la ziar ndeysaan eh rakk ji na gën naa la dégg waaw maa ngi am jàmm tawfeex kay waaw mu ah waa soxna si de yow daanaka dañ fi amul benn kii mu bëgg maa soote xaw ma soote dañuy wax mooy tàngal diwli ne dama koy sot parce que yow man si laa amul lëmin xam na ni laala ba ma bëggee soote laala boobu daal may naa la sa ma ba ma dee maa dama rek. dem na de xoolal ma ne yow moom ren dama laa gisu di bàyyi boobu bàyyi boo ko jot noonu ñu wax ci benn man dama ren dama laa gisu di gisu ma la yónnee woo envoyé woo defoo dara waaw koor gi ah xam nga ne koor gi kay laa wax xanaa yow ñëw yaa ngi jóge est-ce que xanaa da ngaa dem si tubaab bi ah ma ne ah ngi yaa Dakar wala ya ya ngi ñëw si man est-ce que bëgg naa yow foo ne ba jël si la ma jël si la wala ma ma ne yow ma ci man nga ñu wala ma jël si la wala wa ma ne di naa de jóge bàyyi caaroy gi caaroy gaar loolu mooy lan donc wax li ma dégg yéen tubaab yi yàq na leen léegi de waxal olof olof ah waaw Assane dafa newul newul fii newul fii kër gi de mais xaaral man man mën naa la jël si yow ne fan nga nekk yaa ngi fan buntu Pikine <laughs> ah yaa ngi buntu Pikine boobu waaye léegi xam nga ni def xaar xaar xaar ma boole la euh, sama benn numéro moo loolu ay sama dëkkandoo la moo dafa yor moom lu ñu loolu la ñu euh, kii waaye Dakar allo Dakar moom la yor léegi xaaral ma woo ko moom garaawul moom la léegi moom vingt-cinq mille bu ñëwee ma fay ko. ah man koo fay <laughs> damay suuf <laughs> eh, sama rakk ju baax ji waay waay waay waay waay na Assane. billahi barki amul lëmin moo da nga jàppoon ni si kaw mu dem dëgg dafa jàppoon ni dafa jàppoon ni yàlla du ñëw du yónnee ay yàlla ñoo ñoo ñoo wax yónnee moo da ñëw borom milliardaire borom jabar tubaab bi mu ñëw nga xam ne daa moom bu ñëwee ndogu moom ko yor toroxal naa ko def naa ko waaye ren bu ñëwee damay sukk may do si si di kaw ci jàmm bu baax. si ay moom waaye yow da nga dem rek woowatoo ma gis nga bii léegi man daanaka kat xaji rek weer man naa ko tudd maa ko rek kat xaji rek bii laa yow dafa dafa dafa duggoon ci wono bi doon defar sa bopp jangan yàlla jangan. rot ci biir sa jàngoro yëpp jàng jàng lépp daay saafara wallaahi ñu ko man lu laa ko wax asal bi daa taxaw asal mu ma ko ko sant yàlla ah nee naa ko Modou la gën doomu Modou yëpp nga góor ñu jàppale jangan, bàyyi asal dugg naa ko métti barak ana jàng ana football bi la topp ak carte ah asal moom la ak junne de laa fi yor mu jël junne bi daa carte mu jël xaaj loolu moom léegi nag ban façon carte la. boobu nañu naan foot foot foot xaw ma lan foot. foot kaa loolu la ne Sénégal rek la ne. foot am na benn nu ko waxee daal muy dégg mu naan ko. kon est-ce que nekkul application bu may faral di gis pari foot. ah yéen da ngeen di si yooyu. bu bon boobu la. moom it ma yéen liggéey bi léegi bëgg yàlla xam na ni moom ma ci dugal. jël sama taw na ma papa. aywa mille francs ngay gañ aywa parce que gi